daara yi euh, nit ñi nga xamante ni ñu ngi ci diine ji dañu dugal seen loxo du trop ci li nga xamante ni moo di la politique mm-hmm. loolu tey lan la mën a yàq benn parce que tey dañuy gis ay im ay imaamu Pastef ay imaamu nii ay doomu daara fii doomu daara fële est-ce que tey loolu moo war a nekk seen rôle waa am na ñu ci droit dugg ci politique parce que yëfi kuy dund la te yëfi kuy dund kuy dund ca la bokk réew la yonent bi dafa ni sallallahu alayhi wa sallam xubbul watani bëgg sa réew minal imaani ci ngëm yàlla la bokk te ma jàpp ni assemblée nationale bu fa ay boroom xam-xam dul toog bis bu ne dinañu fa nas loo xam ne àndul ak diine mais bu fa sa loxo jotewul doo bokk ci ñuy weddi parce que signé nañ ko fa ba bi muy benn beneen bi ci des mooy koo gis ci àdduna rek dafa am yëg-yëgu benn mbir mhm. di ci liggéey man xam ne sama yëg-yëg lan la mm. du ma man saa yu ma xëyee maa ngi xool yitte bu may def ba nit ñi bëgg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam saa yu ma xëyee maa ngi xool naka lay convaincre nit ñi ñu bëgg yonent bi bii ci des mooy naka lay mën di jàngalee nit ki dévier jaar nii ma ne ko yoon bii nga war a jaar. parce que tey bu fekkente ni su Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa waxoon ni radiyallahu taala anhu dafa ni nax politique baax na. Hmm. mais bu fekkente ni baax na kenn waru cee jiitu doomu soxna yi ndax lu baax ñëpp ko war a bokk. mais nee na bu fekkente ni politique baaxul kon ñëpp a ko war a bàyyi. tout le monde ñëpp bu dee baaxul rek ñëpp dañ ko war a bàyyi. bu fekkente ni baax na bon na kon nit diine yi war nañoo dugg ci biir leeral li baax ni lii la génne li bon nit lii la parce que tey li ma la wax ni la. Mm. état état mooy firi adaw la ci arab mais l'islam dafa am état. Mm-hmm. tey am état boo xamante ni di mooy gérer. kii moo yor nangam ni ni mu amee ministre nangam am ministre nangam am ministre nangam noonu la amee woon ci diine bi fi yonent bi jógee Aboubacar jógee fi Omar Ibn Khattab dafa fondé loolu teg ay ministre am teg ay gouverneur am gouverneur bi dëkk sàngam gouverneur bi dëkk sàngam gouverneur bi dëkk sàngam ba gouverneur yi daj l'islam mën a tegu ci yoon parce que réew faw mu am état boo demee ci yeneen réewu arabe yi n'est-ce pas du ay jullit lañu. Mm-hmm. boo fa demee est amul politique. Ah, ah. moo tax tey sëriñ si war nañu dugg ci politique mais bu politique bi nekk yi fi intérêt. pour benn nit mais na nekk pour ñëpp gis. alors dernier tour de table Pape. <laughs> si Moussa lu mu doon